sampub sëriñ baara mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér sëriñ Ahmadou Mahtar Mbacké xalifa Darou Khoudoss ci kilifteefu sëriñ Moustapha Mbacké xalifa sëriñ Baara Mbacké ak mboolem njabootuk sëriñ Baara comité de pilotage ñoo yëgle quinzième édition journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacké samedi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre 2022 ci CICES ren ñu tudde ko ñaari yoo xam ne yoonu murit du leen ak rakkam ca Serigne Afe ñu di ko yëgal mboolem buntu këri maam Cheikh ante yëpp ak mboolem jabootuk Serigne Afe ci rendre hommage Serigne Abbas Mbacké Darou Mouhty Serigne Moustapha Massamba Baye Abdoulaye Thiaw Laye Serigne Papa Malick Sy Baye Oumar Dia Darou Salaam Serigne Moustapha Absa Darou Mokhti Thierno Mamadou Alpha Sarr Oré Fondé Serigne Modou Makhtar Mbacké Darou Manane Serigne Abdourahmane Mbacké Darou Mokhti Chérif Abdourahmane Fall Tilala El Hadj Modou Mamoun Fall Dindama El Hadj Gora Ngom Xelkom Bache ak yeneen i kilifa bés bango quinzième édition journée culturelle et religieuse Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké samedi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre 2022 ca CICES seen coordonnateur Ba di ko yëgal mboolem jullit yi ku ci bëgg ay leeral wooteel numéro yi 77 635 01 71 wala 77 651 09 44. bu yaatee tey ba ëllëg dunya wa xaaluhu ñeen na Sëriñ Baara.